bokki M Media Group Nourou Darayni bokki taalibe yi bokki jullit yi ginnaaw bu nu sante suñu borom subhanahu wa julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa alihi wa te lu santa Seexna al Xadim alayhi akbaru ridwanullahi baaxil Xadim di ñaan suñu borom subhanahu wa taala noo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaqa suñu borom yàggal ko fi lool ba li mu yéene liggéeyal lislaam mu àggale ko fu kaw njortam ci barke Cheikh noon Xadim noo ngi fas yéene dikkaat ak ci sunu jataayu jigéen ñi sunu émission zaadu nisaa il muslimaati li nasihati al muminina wal muminaati muy jataay boo xam ne jataayu laayante biir la waaye jataayu fàttalente la ñu di ko amali fii ci ëttub M Media Group Nourou Darayni mu mel ni ñoo ngeen ak yéen ci téeréeb Sëriñ Tuubaa boobu tudd wasiyatu soxna Penda Diop te moo ci doon dénk soxna Penda Diop ay ndénkaane yu ama am solo mu mel ni ñu indi woon ko fii ci jataay bi di ko jàngat tomb yi nga xam ne Sëriñ tubaa doon na ko dénk soxna Penda Diop ñu koy jàngat benn par benn ndax li ci nekk ci njariñ njariñ loo xam ne làmboo na àddina ak àllaaxira ñeel jigéen ñi comme jigéen la ko doon dénk waaye ñeel mboolem jullit ñëpp ñoo ci mën a jariñu ñëwoon nañu ak ba agsi ci fi nga xam ne foofu la sëriñ bi di waxee soxna Penda Diop wàccani bil xibata wa takabura wa asbiti sukuta wa tasabura ne ko maa ngi lay dénk ci nga ci ngay muñ maa lay dénk ci nga moytandiku jëw ak moytandiku rëy rëylu ta sax ci di noppi ak di muñ mel ni baatub jëw boobu ci lan defoon émission bi nga xam ne ci lan paasu muy li Sëriñ Tuubaa wax soxna Penda Jóob ne ko na moytandiku jëw ana lan mooy jëw jëw waxoon nan ñëwoon nan ci ci ni ko alquran karim waxe wala yaqtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma aqihi maytan fakarihtumuh alquran daa wax ne bu kenn ci yéen jëw sa moroom ndax kenn ci yéen bëgg naa lekk yàpp sa moroom tontu la mooy déedéet waxu ne jëw itam euh, Sëriñ Tuubaa wax ne dafa mel ni lekk meddu mbaam mooy jëw sa mbokkum jullit dafa mel ni fekk mbaam mu medd nga tiim ko ca ndawal la di dagg yi lekk wa muslim fi xawlil xabiir aqbahu min aklika jifatal xamiir jëw sa mbokkum jullit ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo gën a bon lekk meddu mbaam nga gis meddu mbaam li ci nekk ci donte mbaam buñ ko rendee sax buñ ko rendee ni doon rendee am xar wala aw nag teewu day xaram ci ab jullit rawat na mu mëdd nga xam ne boole ñaar kon mëdd nga xam ne ab jullit du lekk mëdd du lekk itam mbaam tax dafa xaram ci ñoom nga gis ne ñaar yooyu li muy li muy bon bon Sëriñ Tuubaa na ab jullit toog di jëw mbokkum jullitam lekk meddu mbaam moomu moo gën a oyof ci moom ni bàkkaar bu nga xam ne moom la amee ci bàkkaaru toog di jëw mbokkum jullitam bu nu waxee jëw nag mooy lan mooy jëw mooy nga tudd sa mbokkum jullit fu mu nekkut di wax ci moom loo xam ne bëggoo mu dégg ko yaa ngi wax ci sa mbokkum jullit moo xam ne bu toogan fi yow jàkkaarlu yow du ko neex loolu mooy jëw moo xam da ngay wax ci jëmmam wala ngay wax ci lu aji ci moom moo xam këram la wala aw fasam la wala otoom la wala bi yéreem la wala dàllam la wala lépp lu aji ci moom loo xam ne yaa ngi koy wax te bëggu mu dégg la nga cay wax loolu mooy jëw waaye su fekkee ne la ngay wax nekkut ca moom nag loolu aw sos la aw sos la wala reetaane izharu taazim bi xasdi zammi ahlul ilmi suxriyati zamm nee na feeñal màggug nit ki waaye jublu ca ngàññi nga ne nit ki daa njool te fekk boobu dafa dafa gàtt wala nga ne daa nise réyaay mi fekk mu tuuti wala nga naan tuutaay mi fekk mu rëy boroom xam-xam yi ne da loolu reetaane te reetaan itam dafa bokk ci li nga xam ne dañ koy tere ab jullit feeñal ak màggug nit ki te jublu ca te jublu ca reetaan ko jublu ca ngàññ ko boroom xam-xam ñi ne na loolu loolu reetaan la ba tax na jëw moom mooy ngay tudd sa mbokk foo xam ne nekku fa te la ngay wax ci moom ba mu dégg ko benn nga wax ko ci jëmmam walla nga wax ko ci yéreem walla ci këram wala ci fasam wala ci otoom wala ci dàllam wala lu man doon ci yooyu rek boo ko dee tudd te nekk fa loolu jëw la ni nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa masa toog benn bis ak sayyidatuna Aisha radiyallahu anha am ku leen romb sol yére yu gudd lool euh, soxna si daan ne waay waay kiyee guddi yére yonent alayhi wa sallama daf ko ne ko waccul am na ñuy ne euh, euh, Fatima am ñuy wax leen waaye euh, Sëriñ Tuubaa ne moom nee na euh, Sayyidatuna Aïcha la nee na ba mu ne ko ba ne kii ak guddi yére yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa dafa wëlbatiku ne ko waccul wax ko ko waxaat ko ko nee na soxna si daal di daal luuju bi luujoo mu waccu bi mu wëccoo lumbu deret moo génn yonent bi sallallahu alayhi wa daal di koy giñal ne ko maa ngi lay giñal ci ki nga xam ne bakkanub Muhammad ci loxoom la nekk mooy sunu Boroom subhanahu wa taala lii bu àggoon ci sa biir boo ko faatuwaalee askani gën lay askanel ci man mënulaa mënulaatee dugg sawara gis na kon loolu lu doy day war ana ñaati nit ñooy toog fi nit di jëw te amunu maqaamaam lay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sayyidatuna Aïsa nekkootul ñoom àgguñu ca foofa ñu kontu continuer waale ak seen jëw boobe ba faatu waale ak moom kon loolu lu doy waar la lu jar di bàyyi xel la bi mu toogee ak yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ndaw si romb ko gudd lool mu daan waay kii ak guddi yére waay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wëlbatiku ne ko woccul dafa luuju di woccu bi mu woccoo lum bu deret moo génn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam giñ ne maa ngi giñ ci ki nga xam ne bakkanu Muhammad mi ngi ci loxoom lii bu àggoon ci sa biir boo ko faatuwaalee askane gin lay askane ci yow soxna si yonent bi sallallahu dara ci nga dugg ci teelaa dugg sawara nga gis ne lu doy doy waar la loo xam ne lu jara moytandiku la am na ci hadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dafa wax ne an alxiibata ashaddu min na ngeen xam ne jëw moo gën a tar fanweeri njaaloo ci lislaam nga gis ne lislaam euh, njaaloo dafa xaram bokk ci bàkkaar yu mag yi waaye nit ki dem di nit ki dem di njaaloo ji ba muy fanweeri yoon nit ki toog ci benn barab jëw benn jëw rekk ëppule ko njaaloo fanweeri yoon ëppule ko bàkkaar nit dem di njaaloo ji njaaloo fanweeri yoon kenn toog ci benn barab jëw benn jëw rek ëppule ko njaaloo fanweeri yoon ëppule ko gis ne kon jëw moom lu doy doy war lu matam moytandiku la te lu yomb la lool nag lu yomb la lool man ngaa teeku ci barab def ko ay yooni yooni yoon wala nga yend ci ba ngoon jot wala nga fanaan ci bu bët set wala nga ci xëy di ci gontu te sax yow doo bàyyi sax xel na yow yaa ngi jëw te jëw lu yomb la lu bari la comme ñu ko waxee léegi rek mooy wax ci sa mbokkum jullit loo xam ne bëggoo mu dégg ko yëmut ci jëmmam waaye nga wax ko ci ab deram wala nga ko ci ay yéreem donte ci ay yéreem la wala ci otom la wala ci këram la wala ci fasam la wala lépp loo xam ne lu tàq la ci moom te bëggu mu dégg ko nga cay wax loo xam ne bëggu mu dégg ko loolu mooy jëw jëw itam li muy yomb yomb li muy bari bari caageen ki toog di jëw rekk moom mooy amee bàkkaarub jëw du caageen ki toog di jëw rek moom mooy amee bàkkaarub jëw waaye yow muy toog di ko déglu sax ak donte dugaloo ca sa kàddu yow mi toog di ko déglu te li ngay déglu yow dégg gi nga koy dégg mu amal la yitte loolu dangay bokk ci jëw yéen ñaar ñëpp yéenay bokk bakkaar bi wala tazunnu anna ismal ghiba yuxtassu bil xaa'ili fil musiba fa fil xadiisi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama inna allasi inna allasi al ghibata xad yastamicu yushaariku al xaa'il fi ma Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne bu leen jort ne bàkkaaru jëw aji jëw ji rek moo ko moom moo ko moom waaye ki nga xam ne dafa toog di jëw ak ki toog di ko déglu di ko xerawlu ñoom ñaar ñoo bokk dong bàkkaar ba ak donte yow dugaloo ci sa gémmiñ dugaloo ci sa kàddu waaye yaa ngi déglu lim lay wax yaa ngi dig yaa ngi yaa ngi digg li muy wax di ci am itte su boobaa nag yéen bokk dong bàkkaar ba kon jëw lu doya day waar ki nga xam ne moom mooy jëw ak ki nga xam ne moom mooy toog di déglu aji jëw ji wax na feneen tam wala tazunu ana zanbal xiiba yuxtasul xaaili fil musiba fa fi lxadisi sallallahu alihi wa sallama inna allazi qad yastamiu alxiiba mushaariku alxaaili fi ma bu leen njort mukk ne bàkkaaru jëw li muy rëy rëy nga xam ne moo gën a moo gën a tar fanweeri njaaloo ci lislaam moo gën a bon lekk meddu mbaam alquran yemale ko ak lekk ak lekk lekk sama moroomu nit nee na bu leen jàpp ne aji jëw ji rek moom mooy ami bàkkaar boobu waaye ki toog di jëw ak ki toog di ko déglu ànd ak moom ci jëw ba wala ànd ak moom waaye mi ngi toog di ko déglu la muy wax yitteel ko ne ñoom ñaar rek ñoom ñoo bokk ci jiw bi kon mbokk yi jiw lu lu doy doy war la loolu moo tax Sëriñ Tuubaa bonk ci dénkaan yi li mu dénk soxna Penda Jóob wàccande bi raxiibata wa takabura wasbiti sukuuta wa tasabura ndax euh, moytandiku na nga moytandiku jëw na nga moytandiku rëy te it na nga na nga niiwal say wax wasbati sukuuta wata sabra na nga moytandiku jëwu na nga moytandiku rëy rëylu tey na sax ci noppi ak nanga sax ci muñ ah, nga gis ne ñaar yooyu dafa dafa dafa lëkkaloo ak mucc ci bàkkaarub jëw te mooy noppi ak muñ ndax noppi ci loo xam ne amul la njëriñ yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri xayran aw liyasmut gëm yàlla gëm bis pinc ba nangay wax aw yiw te noppi waxat ne min xusni islaamil mar'i tarkuhu maa la yaanihi bokk na ci rafetuk lislaamu cam si lépp loo xam ne itteelu la nga noppi ca waxoon na itam bokk na ci ñett yi nga xam ne bara buñ koy defee yërmande yàlla du fa wàcc jëw daf caa bokk salaasatun isa kunna fi mawdi'in fa rahmatullahi mashrufun anhu zikru dunya wa daxk wal ghiba mooy waxtaane àddina ak ak jiw ñett yooyu barab bu mu nekk rek yërmande suñ boom subhanahu wa taala du fa wàcc loolu moo tax Sëriñ Tuubaa ridwanullahi alayhi dénk soxna Penda Jóob ne ko nanga moytandiku jëw waaye nag del noppi waaye del muñ nga gis ne muñ itam dafa bokk ci li nga xam ne daf lay daf lay musal daf lay musal ci jëw nga gis ne jëw am na sax ñuy wax ne jëw dafa neex ndax barab boo toog di waxtaan te jëw am fa rek waxtaanoo du neex waaw mu day war barab boo toog di waxtaan te jëw amu fa waxtaanoo du neex nga gis ne toog ci barab ba yàgg ñu commencé jëw nga ñokkate ku dagg jëw ba lan doon wax nga xam ne doo xam fu muy daan nga jóg dem loolu muñ rek moo ko man te koo xam ne mënu muñ rek doo ko man loolu moo tax Sëriñ Tuubaa ne ko na sax ci di noppi ak ngay muñ kon daal loolu mooy sunu bindab tey insha allahu taala wajtani bil xiibata wa takabbura wa asbiti sukuta wa tasabbura loolu Sëriñ Tuubaa dénkoon soxna Penda Diop waaye dénk ko mboolem soxna yi waaye dénk ko mboolem jullit ñi kon dañuy taxaw boobu tey insha allahu taala ci sunu jataay beneen jataay bu ndikkee jëm somm suñu borom subhanahu wa taala ñu continuer assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh amma bu haqqin faruq sayyiduna fa fi masaya la yartab tayyaru وعوى المتم ضوي الإسلام يوم عدا